alhamdulilah maa ngi tudd Pape Cheikh Niang ñu gën ma xam ci Pape ñaa président association ànd taxawuñu ñu wér di te yàlla rek a tax. journée bi li ko wund mooy yàgg nañ koo def jamono bu nekk rek chaque quinze jours association bi dañuy organiser benn descente xool fi nga xamante ni fa la malade yi gën a bare ñu dem fa def suñu descente jàpp leen sumil leen yëre yu tilim yi ñu sol di leen sang ba ñu set. di leen solal ay yëre yu set di leen watal seen karaw di leen daggal seeni i wee di leen toppatoo ngir jëmmi yàlla di leen jox ñu lekk di leen jox ñu naan ñi nga xamante ni seen kaa dafa critique lool ñoo ñu ñu jël leen en charge yóbbu leen lu ci mel ni Fann wala lu ci mel ni fi nga xamante ni moo di raffinerie mbaaw waaw jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ci terrain bi daanaka bari na mooy ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dajeel muy malade mental yi bëgg leen a dimbali léeg-léeg dañuy dajeek ñoo xamante ni nii dañuy yaakaar ni ñoom ñoo ñu ëpp yërmande ci malade mental yi fekk na ñii nga gis fii ñëpp defuñu formation gaa mais yàlla def na ñoom formation yërmande boo xamante ni mën nañ cee liggéey liggéey bu ama am solo beneen bi nga xamante ni moom la ñuy jànkoonteel mooy li nga xamante ni manqué nañ ko te doon sàkku ci ki nga xamante ni moo di ministre de la santé Ousmane Diouf Sarr mu jàppale ñu ci loolu te yàlla rek tax muy li nga xamante ni moo di suñu këyit yi nekk en cours mu jàppale ñu ci ba ba ñu jot ci te it mu taxawuñu ñun li ñu soxla bariwul mooy ñuy jël malade mental yi en charge di leen suivre seen traitement it am foo xamante ni fa lañ leen di dugal moom ministre bi mu may ñu li nga xamante ni moo di arrêté ñu am droit jël malaat mental fat ko ñun pare nañ pour louer kër pare nañ pour dugal leen ci te yàlla rek tax ci suñuy propre moyen que parfois di ngeen ay malades yoo waaw loolu loolu dafay am dafay am dañ ciy daje yoo xamante ne nii xeex bu metti lay doon waaye nag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci accueil boobu noonu ñoom suñu borom dénk na leen ci liggéey bu ama am solo léeg-léeg ñu dajeeg malade mental yoo xamante ni bu ñu yeggee ci bërëb ba ñëpp dañuy wax naan kii mënu leen koo sang waaye danañ ko jàpp danañ ko toppatoo danañ ko defal lépp wax dëgg fa yàlla ñun moom a ah, liggéey bi ñu ngi koy doxal li nga xamante ni noonu la ko suñu borom bëggee daal. li ma bëgg a wax te laajuloo ma ko mooy association bii di ànd taxawu ñi wéradi ñu ngi lancé benn message ngir président de la république Macky Sall dégg ko ngir képp koo xamante ni mi ngi yëngu ci santé mentale dégg ko muy dañoo bëgg ñu utal ñu centre boo xamante ni fa la ñuy dugal malade mental yi te yàlla rek tax di leen toppatoo di leen yóbbu ci hôpital yi di leen faj te yàlla rek tax leneen li nga xamante ni mooy message bi may jàllale ngir ñëpp dégg ko muy képp koo xamante ni gis nga malaat mental sa buntu kër wala nga gis ko sa wetu kër bu dee heure ndekki la xamal ni dafa xiif moo tax mënu la koo wax nga jox ko bu dee benn mburu la nga jox ko mu lekk bu dee heure añ la nga jox ko mu añ bu dee heure reer la nga jox ko mu reer te ñu ngi sakku ñu utal ñu oto boo xamante ni moom la ñuy defee descente yi ndax fépp ci Sénégal dañ fay dem te naaj bi day tàng lool ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy àndal lii daal mooy li nga xamante ni moo di sunu soxla non non yamuñu zone Dakar Euh, xew-xew yi nga xamante ni mooy am ci xew-xewu diine yi demoon nañ Touba def nañ fa sept jour chaque jour ñu wàcc ci terrain bi toppatoo malaat mental yëpp te yàlla rek tax Tiwaawoon tamit dem nañ fa te incha allahu rabbul alamin ñu ngi waajal Popenguine ngir maanaam dem fa liggéey liggéey bu am solo association bi national la moo tax ñun daal ñu ngi euh, sensibiliser bépp jaamu yàlla rek mu xam ne malaat mental abandonné yi ci ñun lañ bokk ñu jëlaat leen génne leen ci mbedd mi dugalaat leen ci biir kër yi ñi nga xamante ni identifié wuñ leen Nous faisons que en charge de leen te